demam nga umpuna mindeef te um na boppub kuy mindeef kudul malaaka ya ko wuuf ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom bar sàq ne xéem lim nu njëkk a wax mooy na dem nii ci waa kër sëñ Tuuba waxtaan ak ñoom ndax bis bi seen bis la fii nag moom day day kër sëñ Tuuba ndax ku ne xam ne ki moom kër gi ak li mu bokk ak sëriñ Tuuba ndey ak baay te ndey ak baay moom daa foor kon nag lépp lu ñuy def sëriñ Tuuba kenn war leen caa jiitu luñ cay waxtaan itam war nañoo ñëw ba ci yéen waxtaan ci ak yéen ndax xalaat biñ ci am ak ndigal lañ ciy doxee ak ndigalu sëñ mu taxaa noonu lañ koy jàppe kon nag yow mi fi toogal suñ maam Mamoor Jaara yow lañ ñëw di la yëgal si bis bi sëñ Ahmadou Maxtaar loolu la wax loolu daal mooy tànk yi jëmmal bis bi centenaire bi amar benen dimension bo xamni kep ku ko gis tam na xamni maglu dara xolos Daaru Xuloos waaye ak yi fi da am wax téeméeraat mom du luñuy fet lu bari ku ko fet ben yon yalla mën naa def do ko wat kon nak bis bi day bisu Serigne Touba kon ku bok ak Serigne Touba rek ci bis bi nga bok loolu dal moy sun sunu tank fi ci kër gi eh, li ci war lepp nak ak leral gi ko jox basirou ñaan mu mu gën la bu baaxa baax inshallah allah. soloy ñew gi. ak euh, yëlla ji ak ndigal li nga xam ne moo jóge ci sëñ Muntaxa ñëw ci sëriñ Ahmadou Mokhtar barab bii itam la sëñ bi waxoon ñu njëkke fi ndax ni ko sëriñ sëñ Cheikh Aziz waxe léegi mooy ni sëriñ bi demee ak euh, sëriñ Mamor Jaara bokk lépp ak fi ko sëriñ bi tegoon itam loolu itam sëñ bi di ko dundal xamoon tamit diggante sëñ Mor Jaara ak Cheikh Mamadou Moustapha ndax ci loxom la euh bis bi nak niñ ko waxe modi téméré at yi señ bi ñibbisee Touba muy 1346 ci Égir di wam sasin ba 1446 euh, ci atum gaday gi muy téméré at ndax at momu ci la señ bi daan bind at yoy la daan bind weer yoy tamit ci la daan bind lolu nak señ Ahmad gisone ne bis la boo xam ne bi sëñ bi ñibbisee Touba ba mu am téeméeri at bàyyi njaboot bàyyi itam ay kilifa yoo xam ne da leen defar war nañoo taxaw nag jàngat téeméeri at yooyu li ci yoonu murid def gannaaw sëriñ bi ngir wane ne sëriñ bi kat bi mu fi bàyyee li mu fi bàyyi woon ñi ko bàyyee ñenn ñu nekk def nañ ci lañ ci war a def muy doom yi muy ay mbokkam muy seex si muy ñëpp rek muy taalibe yi wane na yoon wi lii la ci def ci domaine yu bari nag ci wàllu njàngale ci wàllu boole jullit ñu doon benn ci wàllu euh, économie ci lum doon rek ñu wane ne lii ak ak dëkku Touba tamit bi fi sëñ bi daataan ñëw ak bi mu fi ñëwee ba léegi li ci yokku loolu lépp ci gannaaw sëriñ bi la ci téeméeri yi la euh, ñu bëgg cee def nag ay ndaje yu wuute balaa màggal gee ñëw ndax bëgg nañ koo ubbee fële ca ndakaaru ca Masalik ci fukki fan ak ñaar ci weeru tubaab yi ñu jëm incha allahu wala fukki fan ñett ci weeru tubaab yu ñu jëm lañ koy ubbee ca Masalik foofu itam des na fa def waxtaan yu bëree bëri yu wuute ci doxinu yoon wi gannaaw sëriñ bi ci ay te borom xam-xam yoo xam ne eh, jógewuñ daaru xudus waaye dañ leen a eh, boole ci yoon wi borom xam-xam yi fi nekk yëpp eh, ngir ñu waxtaan ci ci lu demee noonu. Euh, bu ñu fa jógee itam danañ dem Louga ci fukki fan ak juróom ci weer maanaam fukki fan ak ñett la fa ba fukki fan ak juróom ci Louga moom itam des na fa waxtaan ci benn ak jullit ak euh, li ci yoonu murit liggéey euh, gannaaw sëriñ bi buñ fa jógee itam dinañ ñëw njaareem ci ñaar fukki fan ci mois de juillet boobu nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom-benn ya mooy doon màggal gi foofa itam danañ fa waxtaan ci xutbatu wam sa sin maanaam dénkaanib sëriñ bi mujj la ca nekk ci ay jàngat ñu jangat ko ak ñëw señ bi euh, Touba ndax loolu itam dafa doon loo xam ne euh, dafa mata leral ndax euh, ak bëggama woon te dafa am lu mu ajoon itam kon loolu itam nam deme lépp des na ko waxtaane waxtaane itam dëkkub Touba bi fi señ bi daataan ñëw ak bi mu fi ñëwee ba suñ jonn yàlla tey ni mu soppi ko ci ci wet yépp ci wàllu dëkkin wi ci wàllu njàngale mi ci wàllu yëpp daal loolu bu ñu màggalee ba ca suba sa nag eh, li ñu waxtaanee woon ci ñetti dëkk yooyu yëpp danañ ko tënk def benn cérémonie religieuse ci màggalu Daaru Xudoos ba ca suba sa eh, kilifa yëpp teew ñu ñu mën a tënk nag loolu xam le ne daal yoon wi gannaaw bi fi sëñ bi jógee ba léegi ñu ko fi wuutu ñëpp la dala ci sëñ Modou Moussa sëñ Fallou sëñ eh, Abdoul Ahad ba ci sëriñ Mountakha mii fi ne kenn ku nekk li nga ci def ci domaine yu wuute. loolu daal la sëñ boo xam ne nañ njëkke fii ñëw yëgal leen ko euh, sàkku ci itam seenu ñaan ak seenu taxawu ndax euh, loolu mu mu woote dafa gis ne moomu ko moom dong yoon wépp ko bokk kenn ku nekk am na loo ci def am na loo ci participer loolu nag kon bu koy def war naa dem ci ku nekk yëgal la ko euh, sàkku ci sa ñaan sàkku ci say taxawaay ngir bu sottee doon loo xam ne nii njariñ rek lay doon ngir yoon wi te dana doon tamit bu boobaa ngërëm loo xam ne day jóge ci sëriñ bi ci teunk dal lolou moy li nga xamne mom mo taxone serigne bi yabal fi kilifa yi boole na ak ñom ngir ñu ñew leeral leen ko di sant bu baxina nak ci taxaway yi alaykum wa rahmatullah. alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ci turu serigne bi serigne Cheikh ak njabotu gep ñu ngi leen di nuyu di nuyu sëriñ Cheikh abdou Aziz sunu wala rew yag ak yi mu àndal ñëpp kenn ku nekk ci ñu seq ak lu yag leen nuyu ci turu serigne bi ak turu njabot gep leen dalal di leen sant bu baax ci xalaat bi ak ci jéego yi ak ci cër bi ndax xalaat bi lu sotti rek ak lu fi am rek sëñ Tuubaa tax kon bu ñu koy defal ñëw fii boole la ca alhamdulilah rabbi alamin waaye loola it yaakaar li ko sëñ Cheikh waxee léegi borom bis bi dafa séddoon borom kër gi cër lool lépp lu mu daan def bala koo jëmee kaw. dana ñëw ba ci moom laaj ko ci xalaatam ne ko li nangam nangam la ñu war a def door ko jëmee kaw eh, njabootu sëñ Tuubaa it noonu la ñu doxoon ak ñoom ba yaakaar lu ci bari ci njabootu sëriñ bi jaaroon nañ ci loxoom ci ndigalu sëriñ bi kon buñ delloo loola ne taxawal lañ bis jógee sëñ Muntaxa ñëw fii da delloo cosaan rek la amoon rek lañ yeesal kon nag yëg na ko bu baax dégg na ko jàpp na ko nit nag mu ne damay taxawal mbir boole naa la ca kooku wàcc na la ca des kon ci moom la te jàpp naa moom lay des du des ci moom ndax njaboot gi li ci ëpp nag teewe nañ ko fii ci dafa amoon xewu fi amoon ndaje mu waroon def mu tombe ci ñu bari yëgandoo nañ ko kon nag mi ngi leen dana ko ànd ak yéen ci wet gone ci ci ko waxee ci xalaat ci luñ fuñ ko soxlaa ak nuñ ko soxlaa ak ci taxawaay ci ñaan ba mu àgg sëñ bu sooy mi mooy buntam ci wet googu ndax yéen a ngi jokkoo ba ñëw fii fuñ ci toll fa soxlaa ku fa su ko yëgee mm, doy na yëpp dañ ko yëg dañ ko ànd ak yéen ci tàmbali gi ba ba ca mujj ga ak fuñ ko mën a defee eh, mu doon loo xam ne jort na ne kenn ku ne rek war ngaa mën a delloo njukkal sëriñ bi lu mu néew néew ndax féetal na sa bopp féete la say soxla féete si yitte yoo xam ne mënoo mënaloo ko sa bopp kon nag te sëñ bi la ñu wooteel wooteeluñ keneen nag bu soobee dañ ko ànd ak ci lépp ak njaboot gépp ñaan nag sunu borom def muy sëñ bi nangu ko li sëñ Muntaxa di wax rek nan nan nan dajee ngërëmu sëñ bi ci la lépp ne buñ xasee am ngërëmu sëriñ bi rek ci ngërëm sunu borom nekk te ngërëm sunu borom kuy dox ci kaw suuf moom nga bëgg ku fi jógee moom nga bëgg te aw yoon la woo xam ne ko jaar boo ko wàccut da nga ci da ngërëm kon nag yàlla na ci yàlla dajale ngërëm ak tawfiix dinaa sëñ barke sëñ Tuubaa demam nga umpuna mindeef te um na bopp kuy mindeef kudul malaaka ya ko wóof ak yàlla ak ñemu ko wax yoneen ba ak ënglu badar yori mbiram di ko defar moo tax xamee su ca lu wér demiinu yoneen la ko jox la dala njurbal ba këram malaaka ya sappe ni gorom di ko bijjanti di gërëm te di ko sabbaal di ko jox way deeye jokk woon fa moom te nekk bar sàkk